Yatal Vision la chaîne de l'actualité dël leen ak jàmm mbokk yi am tax na di nga xam yéen a nuyu si ci xibaar ginnaaw bi ñu leen nuyoo lu ñeel mbirum Cheikh Hadjibou Soumaré ginnaaw jàpp gi nga xamante ne bii jàpp nañ ko ko ci ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko fan yi jàll ni noonu nag looloo waral ñu yóbbu woon ko fële ci yoon doon ko diglu ba xam fan lay yoon di mu jëm moom ni ki démb noonee ginnaaw bi nga xamante ne bii eh, moom moom it di aji bu Soumaré daal nañ koy ñamal guddeem gu njëkk ca kaso ba waaye benn xëyee nag tey jii doon nañ ko digluwaat ba xam la mu waxoon ak li muy wax tey dina bokkam déet waxam wala waxam ji fan lay mujjee ni ko noonu nag bi nu ko digloo ba pare moom Cheikh Hadjibou Soumaré may nañ ko bàyyi yëpp néggandiku ngir mu dellu ca këram waaye nag moom mii di Cheikh nag amul benn benn xibaar boo xamee ne wax na ko euh, jëmale ko ci askan wi bi mu génne waaye nag bàyyi googee dan ko caa tegal ay daan yoo xamante ne bi ngi ci ndoddam muy dañ koy topp di ko saytu moom mii di Cheikh Hadjibou Soumaré ba xam euh, fu muy dugg dugg ak fu muy génn loolu lépp nag du ko mooy benn yoon jëmale ko ci am ndoddam ginnaaw kàddu ya nga xamante ne yëkkati woon na ko moom mii di Cheikh Hadjibou te nekkoon fi premier ministre ci ay jamono loolee nag nit ñu bëree bëri ñu ngi ko doon naqarlu ku ci mel ni it Abdou Mbaye mi ngi doon wax ne ki nga xamante ne mooy Cheikh Hadjibou Soumaré li nga xamante ne daf koo wax bu fekkente ni bi it du dëgg na daal di génn daal di jéggaloo ñu bëree bëri it ànd ci ak moom ci la nga xam wax na ko waaye ñu bëri it ànd ci ak a ànduñ ci ak moom ci li xamante ne bii wax na ko waaye lu ci manti am Cheikh Hadjibou Soumaré bàyyi nañ ko mu ñibbi fa nga xamante ne bii foofee la dëkkoon waaye nag ñu di ko def ab topp boo xamante ne bii dañ koy may gët fu mu manti nekk bàyyi néggandiku lan ko jox moom Cheikh Hadjibou Soumaré